nekk ko xamante ne son parcours n'est pas démontré nekk référence ci ñun parce que bu ñu nekkee ay xale nekk université bu ñu gisee koo xamante ne ñun mooy nekk suñu référence bëgg am jaar-jaar bu euh, jaar-jaaram bi mu am ñu bugg fa teg suñu tànk yàlla def mu dëgg Parcelles Assainies mais suñu ndam la tàccu leen ko bu baax euh, di nuyu le roi des arènes man moom mooy roi des arènes ba léegi parce que bi muy nekk roi des arènes ñun ay xale lañ si moom lañ xamee luy roi des arènes ah. Eh, sànq toog nañ xamee wu ma sax bu ñu génnee fii laa ko laa ko làq séeréer mu ne ma booy da mooy nëbatu <laughs> di nuyu père Biram lii di nuyu Babacar ak seen en tout cas di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi teew ak Xaadim Gajaga bi nga xamante ne aussi unité 11 la. dëkk Njaga merci Nazer. moom tamit unité 11 laa ko dëggale sax parce que marché bi la la nekk du dëgg donc di nuyu ñëpp ñi nga xamante ñoo fi nekk ñoom ami collé euh, ak ñi nga xamante ne waa guy gi man limee damay jub man nag euh, xam naa dama bëri casquette parce que grand bi keroog bu ma gisee ne mais attends man damay subventionné ASC mais yow yaay président guy gi ma ne ko waaw man dama polyvalent <laughs> je suis polyvalent du dëgg <laughs> parce que euh, sport dafa nekk activité boo xam ne Sénégal da ko bëgg yàlla def nag euh, bi may nekk président daaw daaw laay doo ko nekk président guy gi parce que dama gis ne ASC guy gi dama si doon contribuer xaadim mi di si di si jàpp euh, équipe bi gagné finale zonal boobu nekk moon président j'étais supporter di si jàpp kon le mérite ne me revient pas à cent pour cent dama fekk équipe bi euh, jël coupe ba pare man ma ñëw nag xam ne équipe bi de dem phase départementale dina soxla beneen appui si laa ñëw président bi fi nekkoon def def liggéey bi yëpp nag ne ma ah tënk naa la ASC bi ñoom ñu wóolu ma ensemble sur la base de cotisation ku nekk def sa dërëm ñu dépensé si 6 millions de nos francs te kenn fekk si yàlla def ñu dem final te xam naa daaw moom perma nga suñu perle mais daaw moom ñoo ko ëppoon doole xaw ma nag ren <laughs> mais comme moom champion la xam naa mu séeréer la mu aj affaire yi pour defarwaat du dëgg mais rek juste waxtaan rek beneen fierté lañ am parce que on pale de finale départementale mooy équipe yi nekk département de Dakar yëpp dañ doon compétir mais ñaari équipe Parcelles Assainies dem finale kon c'est le sport parcellois qui gagne c'est-à-dire loolu si si quelque chose bi nga xamante ne gars yi dañ ci war a bàyyi xel bu baax daaw j'ai acheté en lot de mayo ni ma ko mayee ASC guy gi ma dem ba unité 24 may leen ko boobu sport bi mi ngi woon violence ma dem ba booy unité 24 yi waxtaan ak ñoom man leen Parcelles Assainies moom mooy gagné scène de violence yi may gis am si supporter guy gi ak supporter yeneen ak yeneen bu ñaari équipe dajee Parcelles Assainies yooyu am rek sunu sunu gàcce la ñun waa Parcelles Assainies kon quoi qu'il puisse advenir je pense pas que loolu dina am tey nag mu nekk lu spécial mooy li nga xamante ne loolu lañ ciy def permanent di ko def keneen di ko def unité 24 ñun ñu ko def unité 11 dañu fekk ñu xamante ne daf ñu ci dooleel jàppale ñu si mooy li mu wax sànq rek si contexte mu nekk bu dimbalee ñëpp ñu ne dañ koy politiquer mais euh, ODCAV dafa wax ne le mois prochain dañuy dem euh, compétition finale bi demaale phase nationale ku xam ne pare nañ pour def si sunu alal mais kuñ si fekk si ak sa alal aussi dañ lay sant gërëm la ñaanal la dañ lay sant gërëm la ñaanal la parce que soxla nañu ko donc monsieur le ministre ñu ngi lay remercier au nom de de l'ASC Gouy Gui di ñaanal Parcelles Assainies jàmm di ñaanal réew mi jàmm parce que jàmm si la lépp xaj. parrainage drapeau bu mu la tuddee au stade Iba Diop la lutte traditionnelle mbër fa nekkoon ñëpp mosul am ci année bi yëpp teg nañ fa 10 millions mbër yooyu mosul am donc te moo tax ñu tuddee la ko parce que. mësuñu woon toog pour le parrainage te mu réussir à 100 pour cent def ci lu ci war nga jox ko lu ci war mu def ko kon mu ngi lay gërëm di la sant Khadim maa ngi lay gërëm di la sant mais da nga xaw a fàtte benn affaire tuuti waxtaan ak ministre il nga waxtaan ak moom les anciennes gloires de la lutte sénégalaise dañuy sonn te ñu ngi dem benn par benn yàlla su def suñu demee nag te président de la république dina ci def dara ñu gën leen gestu man katolik laa yóbbu naa lu ma juróom-ñaari nit màkk à la fin ñu ne ma da ngay dem Rome ma ne ko non dem leen rek yàlla su defee ma war a dem Rome kenn du ci wax sax. ASC boo xamante ni macha allah yàlla suñu borom dafa dogal bi ñu tàmbalee taxu koo yàgg noonu mais ñu am ay dirigeants yi responsable seen fu mat donte ay xale lañ surtout nag euh, président goo Faye fii euh, sa waay daanelee ci daaw élec kii euh, nawetaan yi fa tàmbale dañoo tàmbale mu méttiwoon lool ñu dem deux matchs yàlla suñu borom dogal li muy dogal teewul ñun ñu continuer ci ñi beneen phase yàlla suñu borom dimbali ñu ña am ay président yoo xamante ne ku mel ni xam naa euh, Papa Manga moom it ñun ñëpp ñu ànd dem ba yàlla suñu borom may parcelle ndam ndam boobu tey moo ñu fi boole macha allah yal nañu yàlla suñu borom boole. Euh, ñi ndam bi aussi ñëw nag par kii unité unité onze surtout kii <laughs> guy gi loolu yàlla yàlla mën na ko yan na ko yàlla def mais dañ lay dañ lay ñaanal yow monsieur le ministre dañ lay ñaanal sa taxawaay ñin unité onze euh, comme njaga nu mu ko waxee suñu terrain bi dama xool ni bi ñuy tàmbalee ci terrain bi euh, ñaar ñoo ñu jàppale yow ak monsieur Go Faye mi toog terrain bi problème la ci parcelle problème bu rëy sax te amuñu fu ñu te terrain mbooloo boo xamante ni du terrain football kese euh, ñiy def conférence fa lañ koy defee ci ñi daayira yi nekk ci koñ bi yëpp fa la ñuy defee seen i jàng ku ñu si mën a jàppale daal dinañ ko jël ak fierté te yéen lañ ci yaakaar ba muy tàmbalee yéen ñaar la. te yàlla boolewaat ne leen encore ngeen toog yéen ñaar kon yan na yàlla dëgëral seen toogaay yàlla sàmm leen ba lépp li ngeen di mbébét ak li confiance bi président am dénk leen ko yan yàlla suñu borom matalee loolu ñun daal ku ñu jàppale suñu parcelle euh, unité 11 bi surtout guy gi lañ bëgg daaw dafa métti woon trop dafa génnewoon 6 million c'est Pape Kory Faye yan na la yàlla taxaw barki yonenti man du ma waxal nit ki loo xamante ni mooy loolu dama ñëw pour jàppale samay rakk gunge leen mais daf ñoo gunge ci lu bari loo ko mën a jàppale rek du doy loo ñu mën a jàppale rek du doy wax ji daal xam naa ne gudd na mais ñu ngi lay remercier encore une fois euh, jeunesse su parcelle jeunesse unité 11 ñu ngi lay remercier ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom li ngay fi ngay jëm ni yàlla defal la ci ndam mais nag nga jàppale ñu euh, teg loxo suñuy rakk suñu xarit suñu président Pape Kory Faye yàlla dëgëral seen liggéey. ñu waxee ma ne leen man sama référence ci sport Manga la. parce que ñun dañu gisoon ni manga bi muy euh, làmb bi naan dañuy dem kër mam manga fekk defar na këram def ko étage defar ko ba mu bien boobu lutteurs yi ñi ngi def lu ñu am rek bon day yem ci làmb rek mu jeex mais manga deful noonu dafa tracé voie bi nga xam ne tey jii ñoom Tyson ñoom Tapha Gueye ñoom ñëpp fa lañ jaar muy fierté parcelle di suñu fierté ñun ñëpp ñu ngi lay nuyu di nuyu aussi suñu papa Birane li di nuyu aussi suñu fierté ñun waa unité 11 muy Go Faye ab Kori fay di suñu xarit di suñu rakk di ko félicité bu baax di nuyu suma grand bi nga xam ne tey jii mën naa ne ku ko tudd ku wax Amadou Ba boo ne Babacar Gueye ne Khadim Gadiaga parce que lu bëri man j'étais témoin oculaire et jusqu'à présent lu muy def tamit fekkee naa ko mën naa ci taxa wax muy Babacar Gueye di nuyu mbooloo mi ñëpp boo gisee ma jël parole damay jël parole leeral lu bari ci biir unité 11 bi nga xam ne tey falaa dëkk nga xam ne tey jii euh, jumaa ji nga xam ne tey dafa miir bi dafa tojoon ñun ñoom ñu fay julli àjjuma te kenn yëgu ko mu defoon ay trou ba miir yi di waaj daanu bis ministre ñëw na sama kër imaam yi daje foofu wax ko la lendemain la yónnee ay millions ne nañ ko miiree defaraat moom mii moo ko miiree raax ko teg sans bruit sans tambour kenn yëgu groupement yi nekk unité onze li may wax ni àjjuma lañ toll lañ nekk ëpp na lu toll ci ñaar fukki groupement amul ku ci lekkul dix millions kenn yëgu am na ñetti groupement Ndiaga Diop mi mën na ma seede dañu nekk jotuñu financement biir 11 am nga man rek sama jikko mbër ma dugg ñëw fekk ko ministère des finances fëxër fëxër ñëw monsieur ministre financé ñu waa 11 mu woo madame Guèye jox ko 10 millions ko financé leen financement direct mu financé leen direct famille liggéey te kenn yëgu donc man 11 bi ma nekk. xam naa ni def na fa defati fa defati fa te lii nga xam ne lañuy defal ay yi lii tey ji moom loxo moo ci la njëkk dugg bi nga xamee ni yàlla def na mu reprendre politique parce que Amadou Ba waa parcelle la Amadou Ba euh, depuis jeunesse socialiste mi ngi Parcelles waa waajuram fii bari na jeunes yoo xam ne tey jii ñi ngi football wala ñi ngi liggéey moo leen tudd inte donc kenn mënu ko génnee Parcelles Assainies mais bi muy njëkk a ñëwaat dafa ne nañ dem ci jeunesse bi nañ dem ñu defal jeunesse bi keroog moom rek laa mës a gis ku financé financé euh, euh, subventionné Cambérène zone yëpp zone 8B zone 8A zone 8C moom rek ko fi def amul keneen keroog Cambérène amul ku jotul 300000 jot maillot jot ballon ma ànd ak kër Gueye mii mu jox ko mu indi ko ñu joxe ko waa parcelle donc monsieur le ministre yow ci sport yàgg nga ci def final bi nga xam ne tamit suñu ASC bii jël na ko gis nañ taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ci donc ñun moom lépp lu ñu la mën a wax dañu lay sant di la gërëm waa unité 11 di wax nag sama sama papa Manga bëgg naa ngeen bàyyi waa guy gi ñu gañe ngeen koy ñaan parce que aussi kon li may wax ne damay nuyu Lamine Gueye parce que ASC guy gi Ndiaga Diop mi première réunion bi ci njëkk a def mu ànd ak euh, jàmba ku ci sonn ku yàgg def ci ASC bi xaalis ànd ak euh, euh, nu tudd tuddati droit ànd ak kii Fall Mbay Fall ñu ñëw ñu ne ñu dañu taxawal ASC jour boobu sama kër lañ njëkkee ma dugg xool lu ma am rek ci teg mbay faal xaalis bi ne ma lii moo njëkk a dugg ci keesu ASC bi maa kii amul lu ñu deful ci ASC bi ci sutura donc ñun lépp lu ñu defit ñu ngi ko def au nom de ma leen di ñaan yéen waa unité 11 waa unité euh, Manga moom sama père la parce que sama papa la suma xarit la di nuyu aussi Tomben seen di champion bu mag nekk bras droit Manga parce que coow yi ñu fi ma a def CNG dina ma woo këram guddi kenn du yëg may wax hygiène de vie bi nga xam ni moom la ma wax ne ma boo bëggee hygiène de vie moom vingt une heure lay tëdd day fay téléphone vingt une heure mais am na bis boo xam ne ba vingt deux heures xaar na ma këram ma ñëw mu ne ma bàyyi lii nga def lii dama leen di ñaan yéen ñëpp ngeen ànd jàppale gorsi yi Pape Kory Faye li ma lay wax naa ko démb démb li nga dajale biir onze sa kër loolu bariwul lu ma koy gis onze te ñun dem nañ ba tëdd am mbégte te fi nga teg sa tànk wallahi azim fen gënu ko gor nga waaye gor nga ko seqal man du ma ne nit yàllaa ngi lay nuyu te gisuma ko maa ngi def visite médicale bu mag parce que Amadou Ba dafay ànd ak ñun àndu gor nag moo tax tey jii bu ñu defee ku ne da ngay gis te doo xam ñun rus nañ tey jii Amadou Ba di def dara nekk candidat te du ñu làmb suñu poos reyante defal ko dara chaque année damay meeting bu bu bu amee soxla day dem ba ne ma bàyyi ko sax parce que dafa li ngay def mënoo yéen ASC yi ñu ngi leen di dimbale mais da naan parcelles yëpp amul benn couche social bu ministre bi dul dimbale. boo leen ñëwee ci imam yi chaque fete woo nañ imam yi jox leen seen tabaski walla seen koor muy ceeb ak xaalis woo nañ délégué de quartier yi jox leen seen tabaski. ak seen ceebu koor jàkka yi jàkka bu ràpp ministre bi defar na ko ordonnance donc kooku bu nekkee si benn gox nekk si gox bi bëgg dara doo leen ko jàppale monsieur le ministre dañ lay ñaanal yàlla li nga def au niveau des Parcelles Assainies xam nga nu ma la tuddee pompier ndax yaa ngi fay lakk yi ASC bi nag du la leen wax guléet lii mu leen defal du guléet ndax man si ASC yi laa nekk je suis avec Manga waaye damay nëbbatu si ndax âge bi waaye li ngeen di def si ASC yi am ngeen ku leen jàppale goo fay li nga def bettuma li nga def si ASC Manko si ASC guy gi non Manko dafa war a jël coupe bi moo tax may wax loolu Manga 24 kan moo koy jàppale xëy na man mi tuuti mi maa koy jàppale mais lépp lépp lépp si loxo Manga la mooy président parent d'élève bi école bi yépp si loxo Manga la Manga mooy financé kon dañ lay ñaanal yàlla gudd fan gi ànd ak wér-gu-yaram vraiment duma ma guddal monsieur le ministre yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal. jërëjëf maa ngi nuyu mbooloo fi nekk yëpp. son nee na jërëjëf mu ngi nuyu mbooloo mi fi nekk yëpp. di leen jéggalu ndax dafa tooy. di leen jéggalu ndax fi mu nekk nii suuf si dafa tooy. déplacement yi dina xaw a jafe tuuti ci biir Parcelles Assainies. déplacement bi dina xaw a jafe tuuti ci biir Parcelles Assainies. ñu may ko nag mu nuyu doyen Birane Ly. ñu may ko nag mu nuyu doyen Birane Ly. di champion. di délégué de quartier. di délégué de quartier. di président délégué de quartier. di président délégué de quartier. loolu dafa am lu mu wone loolu dafa am lu mu wane. mooy confiance bi nga xam ne waa parcelle am nañ ko ci moom. mooy confiance bi nga xam ne si waa parcelle am nañ ko ci moom. ndax délégué de quartier confiance su quartier bi la. ndax délégué de quartier su quartier bi la. ku ci ñoom ñëpp bu ñu dajewaatee jël kenn jiital ko. ñoom ñëpp bu ñu dajewaatee jël kenn jiital ko. kooku am na confiance su Parcelles Assainies yëpp. waaye nag ay jaar-jaaram. may na ko loolu. may na ko loolu. ndax yàlla def na ko defoon na ko champion avant muy ñëw fii ci Parcelles Assainies. ndax yàlla defoon na ko champion avant muy ñëw fii ci Parcelles Assainies. muy fierté Parcelles Assainies yëpp. muy fierté Parcelles Assainies yëpp. di chance su Parcelles Assainies. chance su Parcelles Assainies. may nuyu doyen Manga 2. may nuyu doyen Manga 2. ci yaram. ci yaram. ci compétence am. ci compétence am. ci professionnalisme am. ci di champion. di champion. mun naa sa wax di super champion. mën naa sax wax ni di super champion. yàlla it boole ñu fii ci Parcelles Assainies. yàlla it boole ñu fii ci Parcelles Assainies. loolu aussi di chance su Parcelles Assainies. aussi di chance su Parcelles Assainies. mànga di ku baax. mànga baax. muy ay diggante. muy ñaw ay diggante. parce que nekk vedette. parce que nekk vedette. nga dem ba sa carrière nga jeexal ko. nga dem ba sa carrière nga jeexal ko. continuer nekk ci loola. continuer nekk ci loola. te kenn jéppiwu la. te kenn jéppiwu la. kenn fa nekkee woon a tax. fa nekkee woon a tax. bi muy nekk champion ci lutte. bi muy nekk champion ci lutte. ak fii lutte tollu tey. ak fii lutte tollu tey. bu mënee di conseiller ay rakkam. mënee di conseiller ay rakkam. di leen di leen jàppale di ànd ak ñoom ñu nangu ko loolu it ci moom la kon waa Parcelles Assainies kooku seen chance la léegi ñu ngi koy gis ci monde football ci monde football jiite benn ASC. mu ñëw jiite ci benn ASC. ASC bi xëy na am na yeneen activité. ASC bi xëy na am na yeneen activité. waaye ASC ni mu bindoo ci suñu réew. waaye ASC mu bindoo suñu réew. football moo ci euh, daanaka mooy leadership am. football mooy exercer daanaka mooy leadership am. loolu moo ko ci exercer. loolu moo ci exercer. buñ ko nangoo ci quartier bi. waaye buñ ko nangoo ci quartier bi. kooku aussi dafa am lu muy symboliser. kooku aussi dafa am lu muy symboliser. parce que espoir la. waa manko li ñu bëgg mooy image yu manga ñëw si ñoom d'une manière positive loolu moo nekk ci ginnaaw loolu yëpp loolu moo nekk ci ginnaaw loolu yëpp kon loolu waa Parcelles Assainies dañ ciy sant ngir ki lay ñi lay jàppale ngir ñi lay jàppale bare nañu bare nañu mais tudd nga ci léegi ko xam suñu rakk la ñu xam ko bi ñu nekkee ministère des finances ñu xam ko bi ñu nekkee ministère des finances muy wage compétent. muy ku compétent. ku sérieux koo xamante ni dina dimbali quartier bi lii moo koy seede. koo xam ne si dina dimbali quartier bi lii moo koy seede. xam naa it mu ngi dimbali ay mbokkam. xam naa it mi ngi dimbali ay mbokkam. ndax lu bëri dañ ko déggaat. ndax lu dañ ko déggaat. kon ñaanal ñu ngi koy ñaanal. kon ñu ngi koy ñaanal. mais li mu def bettuñu. mais li mu def bettuñu. ñu ngi ko ci encouragé bu baax a baax. ñu ngi si encouragé bu baax a baax. c'est un jeune qui a plein d'avenir. c'est un jeune qui a plein kon yàlla ko yàlla fal cat. dollee ko jàppale. ñu ngi leen koy dollee dénk. ko aussi lu am solo la. bi ngeen ñëwee fii wax li mu leen di ci lu baax. ndax bi ngeen ñëwee fii wax li mu leen defal ci lu baax. bu ko defuloon doon leen bu ko defuloon du ngeen ko doon wax. kon bu ngeen ñëwee ba fii wax ko. kon bu ñëwee ba fii wax ko. ñun ñu xamoon ñun ñu xamoon ko. foog ñu delloo leen ko. kon foog ñu delloo leen ko. xam ñun ñëpp waa Parcelles Assainies xam ni que ci biir Parcelles aussi. xam ni que ñun ñëpp waa Parcelles si biir Parcelles Assainies. am na fi ay compétences. am na fi ay compétence ñoo xamante ni ñu ngi jàppale Parcelles. ñoo xamante ni ñu ngi jàppale Parcelles. ñu bëri yëguñu ko. te ñu bëri yëguñu ko. aussi lu ñu mot a la. kon loolu aussi lu ñu mat a wax la. may nuyu sama frère euh, Go Faye. may sama frère Go di jàmbaar. di jàmbaar. di ku bëgg askan wi. di ku bëgg askan wi. il fait partie de rares jeunes. il fait partie des rares jeunes. boo xam ne élection yi fi amagum yëpp. boo xam ne élection fi am yëpp. pour servir gox bi. pour servir gox bi. moom da ciy dugg. moom da ciy dugg. loolu dafay wane son profil psychologique. loolu dafay wane son profil psychologique. en tant que leader. en tant que leader. surtout au service de la communauté. surtout au service de la communauté. moo tax ñu gis ko bu baax li mu def ci élection municipale yi. tax ñu gis ko bu baax li mu def ci élection municipale yi. félicité. di ko félicité. pour résultat yi ko waa Parcelles Assainies jox. pour résultat yi xam moom la ko waa Parcelles Assainies jox. mais surtout di ko félicité. mais surtout bi nga xam ne dafa décidé. bi nga xam ñëw jàppale président Macky ci biir Parcelles Assainies. ñëw ciy dégg nag lu bari. li ciy dégg nag lu bari. ni àdduna demee tey mais loolu ne àdduna demee tey la. ak ni réseaux sociaux yi di fonctionner. ak ni réseaux sociaux yi di fonctionner. je le connais très solide. je très solide. très structuré. très structuré. mais très fier. mais très fier. am na loo xam ni. am na loo xam ni. wóor na ma ni. na ma ni. ku ci bëggoon a moom. ku ci bëggoon dem ak moom. du la ci topp. du la ci loolu yéen waa parcelle xam ngeen ko. loolu yéen parcelle xam ngeen ko. man xam naa ko ci moom. man xam naa ko ci moom. xam na ko ci boppam. moom xam na ko ci boppam. kon amul jarul loo jarul ñu ci ak ci ñu ci wu. donc loolu daal jarul ñu si attardé wu. kon euh, góo ñu encouragé. kon góo fay ñu ngi lay encouragé. di la félicité. di wax ni fi nga jàpp foofu la. continue di travailler. continue di travailler. ñu ngi suivre sa travail sur le terrain. ñu ngi lii ñu def ci la bokk. lii chance nag bi ñu am bi yoon. chance nag bi ñu am bi yoon. mooy département bi Parcelles Assainies mooy nekk champion. mooy mooy doon champion. kon man j'ai man j'ai waaw bu ñu amee ñaari équipe. ñoom ñooy dem final départemental. ñoo xam ne ñooy dem final départemental. ñaari équipe yëpp dëkk Parcelles Assainies. te ñaari équipe yëpp dëkk Parcelles Assainies. allah kulli alin. namu Parcelles Assainies lay doon. kon man li ma leen di ñaan. kon man li ma leen di ñaan. si jongante bi lépp lu ci sport. def leen ko ba mu sëkk. ngeen jàpp nag. ñun ñëpp ay dëkkandoo lañu. ay xarit lañu ay mbokk lañu. te da ngeen jël ay kilifa kilifa jiital leen dañu jël nag jëmmu kilifa yooyu. nañu jël nag jëmmu kilifa yooyu. teg leen ci kanam teg leen ci kanam. bañ a def loo xamante ni. bañ a def loo xamante ni. du dëppoog seen i valeur. du dëppoog seen i kenn xamu ko ci violence. mànga kenn xamu ko ci violence. kenn dégg ko ci violence. kenn amoon na capacité yi. et amoon na capacité yi. amoon na opportunité bi amoon na opportunité bi. tolloon na ay bés yoo xam ne xëy na loolu rek ko mënoon faj. tolloon na ay bés yoo xëy na rek ko mënoon faj. mais toppul gaañ ci loolu. li mu am tey. looloo ko may li mu am mooy ñëpp nangul ko. góo xale xale la. toll na moom it mi ngi mu ngi to mi ngi exercer son leadership. te dinañ ko ci jàppale. kooku wax naa ko ci biir. kooku wax naa ko ci biir. wax ci biti ba ñëpp dégg ko. parce que li mu soxla. ndax parce que Assane li mu soxla. des hommes et des femmes de valeur. des hommes et des femmes de valeur. kenn nag doy ci. kenn nag doy si. ñaar doy si. ñett doy kon li ñu am. kon li ñu am. ñu doon des personnes de valeur. ñu doon ay personnes de valeur. nañ leen fexe boole. jàppale leen. dem ñoom. kanam dem ak ñoom kanam. xool ñi nga xam ne am nañu potentiel. xool ñi nga xam am nañu potentiel. nekk ci biir mbooloo mi ñu xëcc leen ñoom aussi fexe. ñoom aussi ñu doon de grands responsables. ñu doon de grands responsables. doon de grands leaders. doon de grands leaders. kon go kon aussi si ASC guy gi. maa ngi ñaan aussi. maa ngi ñaan aussi. jour final ba. ngeen xam ne Parcelles Assainies rek la. ngeen xam ne go c'est pas un homme violent. ñu xam ne go c'est pas un homme violent. gis ko unité 11. gis ko unité 24 gisuma ko ci Parcelles Assainies yëpp. on a la chance d'avoir beaucoup de champions. et on a la chance d'avoir beaucoup de champions. ci wàllu lutte. ci boo jëlee tey Modou Lo. boo jëlee tey Modou Lo. il fait une fierté nationale. il fait une fierté nationale. boo demee ci Papa Sow mi ñu seeti woon. boo demee ci moom aussi c'est notre fierté. beneen jeune bu nekk fii ci. Franc mi ngi fi une décette. Franc aussi mi ngi fi une décette. di jëm di di di di ñu ngi gis ni mi mi ngi ñëw. ñu ngi gis ni mi ngi ñëw.